informés de tout on a demandé conseil à nos avocats bon euh, ils nous ont conseillé li ngeen war a doxalee li ngeen war a def ñu jël huissier également euh, requérir un huissier pour mu ñëw au cas en parce que huissier bi fan nga ko soxlawee. Hmm. suñ la joxee fiche. il <laughs> y a pas de problème <laughs> tout se passe normalement tu amoo loo mais en cas de refus dañu soxla woon huissier effectivement mm-hmm. dès que le refus s'est présenté l'huissier est venu moo intervenir di def constat bi donc euh, c'est ça qui Euh, moom moo fondé suñu recours bi au niveau de la cour suprême hmm. référé liberté mais euh, lu ñu alerté mooy les sorties récurrentes des membres du gouvernement dont le ministre de la justice sur la question de la radiation lu mu ci doon insister on s'est dit que kii bon euh, finalement au lieu de parler de la justice il parle tout son temps à parler de la radiation d'Ousmane Sonko dafa mel ni léegi loolu ci compétence am la bokk mhm. mais je pense que Euh, lii euh, loo xam ne ay instructions. yoo xam ne hmm. waa DGE jot nañ ko. ils ont subi des pressions. te ça revient également à lu ñu doon wax. Hmm. mooy euh, pour que élection yu transparente élection yu inclusive élection yu démo démocratique am il faut que ñu euh, nommer un ministre chargé des élections qui soit à équidistance de tous les partis politiques parce que hmm. le ministre de l'intérieur moom ñëpp xam nañu il est membre de l'APR ah il milite dans l'APR muy Antoine Diome Donc il faut un ministre chargé des élections, comme en 2000, Abdou Diouf avait nommé le général Mamoudou Niang, donc au ministère de l'Intérieur, mu nekk en même temps ministre chargé des élections. En 2012, Ablaye Wade, je pense même sur la pression des opposants comme Macky Sall, avait nommé Cheikh Gueye ministre chargé des élections moom moo organisé élection bi donc toutes les alternances qu'il y a eu il y a eu un ministre chargé des élections yoo xam ne mais c'est seulement pour la présidentielle waaw maanaam bu dee yeneen élection moom grave waaw mais ñun sax suñu sañoon ñu def ko pour yeneen élection yi parce que élection ñu gis ni mu jàll élection locale yi on a eu de sérieux problèmes hmm. avec les listes hmm. da ngay dem déposer benn liste bon préfet bi c'est son droit ne la non mënoo déposer c'est irrecevable li présenté wul bañ nga déposer nga dem tribunal euh, daf recours hmm. ah justice may la dëgg ministre de la euh, l'intérieur demandé au préfet de faire appel de la décision devant la cour d'appel donc ça c'est assez grave parce que milieu préfet hmm. moom amul intérêt à agir foofu su fekkee justice jox na la dëgg rek da la ko war a nangul nekk républicain hmm. ah bañ a dugg immiscé wu dans la procédure parce que su préfet dafay appel day mel ni il représente le parti au pouvoir parce que kooku ñoo ñoo am intérêt hmm. opposition bañ déposé mais le préfet n'a aucun euh, intérêt dans ce domaine là parce que code électoral en fait esprit bu ñu ko defee mooy pour permettre à tous de participer c'est pas un esprit mhm. euh, d'exclusion mais c'est un esprit d'inclusion de participation donc ñoom suñuy topp loi bi esprit boobu nañu war a toppee beneen bi mooy les élections législatives gis ngeen euh, péripéties yi ak notre liste euh, euh, nationale bu ñu jël titulaires yi éliminer ko supprimer ko ne ah, suppléants yi alors que pour euh, Benno euh, ils étaient dans la même situation que nous ñoom ñu permettre seen titulaire yi ñu dem éliminer seen suppléant parce que xam nañu élimination suppléant liste nationale y a pas de grandes conséquences tout le monde comprend hmm. donc tey ñu ñëwaat à la l'élection présidentielle première étape opération électorale muy retrait de fiche de parrainage ñu gis vraiment scandale bu ci am loo xam ne kenn xalaatu ko woon donc est-ce que mën ñu continuer nii avec ces mêmes autorités avec cette même DGE avec ce même ministre de l'intérieur ki va organiser les élections hmm. donc ça va poser problème moo tax ñëpp ñoo xam ne tey ah en tout cas c'est des ñoo bokk ci opposition bi ñoo bokk en tout cas euh, souhait am souhait que élection yi mu doon ay élection yu transparente mu doon ay élection yu démocratique mu doon ay élection yu inclusive nga xam ne on dira que le meilleur gagne te su gagnee du am contestation on doit souhaiter en tout cas euh, demander la mise en place d'un ministre chargé des élections mais est-ce que yéen am ngeen juboo déggoo ci seen biir au sein de l'opposition pour forcer un peu le pouvoir quel que soit le régime bu fi nekk mu mën a topp loolu ngeen bëgg nii tey par exemple ci lu jëm ci wàllu ministre de l'intérieur mais tey même si on prend le cas Ousmane Sonko bi nga xëy ne bëgg nañu gàllankoor ko pour mu bañ a dem ci ay élections mm-hmm. est-ce que déggoo ngeen juboo seen biir de sorte que yéen opposition bi yëpp da ngeen taxaw ne ni soit day bokk bu bokkul kenn du dem. waaw peut-être euh, je pense que tollaguñu ci niveau de solidarité boobu. Euh, je pense que tollaguñu ci niveau solidarité mais ñun quand lu ñuy laajte mooy au minimum ah. qu'on s'accorde sur un certain nombre d'exigences mooy dont la première exigence un ministre chargé des élections hmm. qui soit impartial qui soit euh, équidistant des partis politiques mu bañ koo xam ne ah euh, waa Benno Bokk Yaakaar suñ ko joxee instruction il applique les yeux fermés mu jox ko le commissaire de la DGE kooku applique les yeux fermés donc loolu vraiment c'est pas bon hmm. beneen bi ah mooy au moins la question du fichier électoral war nañ ci wax ah on doit mettre à la disposition ce fichier électoral à la disposition non jotaguñ ko jotaguñ ko euh, beneen bi également euh, war nañ ko wax mooy tey lépp loo xam ne mooy organisation bi tey par exemple le, le premier ministre actuellement mais il fait campagne pourtant da koy mbubboo en tant que premier ministre mais lu muy def yëpp il l'a fait en tant que candidat de Benno Bokk Yaakaar ba passé gis nañ ko dans le Ranérou la Ferlo semaine nationale de l' mu dem gars yi di ko teeru naan Amadou président alors que élevage moo ko fa yóbbu woon donc est ce que moom itam warul démissionner ah pour bon am na loo xam ne démocratie tamit élégance la fair play la mais ñii dafa mel ni ñoom intégré wu ñu aspect boobu ñoom pour ñoom loo wax rek ñu ne la l' alors que l' état ñoom dañoo nëbbatu ci ginnaaw état ah di jël seen intérêt Benno Bokk Yaakaar ak APR jiital ko ba pare naan état état état c' est pas c'est le régime Benno Bokk Yaakaar APR il faut faire la distinction ñun état xam nañ ko. Hmm. su su vraiment y a des missions régaliennes ak yooyu mais confusion boobu moo baaxul. Hmm. te tey euh, suñu benn opposant bu mel ni ga Malick Gakou mu ne day def. Euh, euh, ses déplacements mais ñu gazé ko c'était comme le cas de Ousmane Sonko avec son Némékou Tour donc y a un sérieux problème. tey su suñu démocratie bi nu muy fonctionner waaw deux poids deux mesures kumba am ndey kumba amul ndey dafa flagrant hmm. te moom lu lu ma si gis mooy ñoom jàpp nañ ni intégré nañu ils sont devenus impopulaires ils sont devenus minoritaires hmm. parce que seen hantise yëpp c'est le second tour Mm. parce que Macky Sall a promis de faire passer Amadou Ba au euh, premier tour. mais Macky moom si boppam su nekkoon candidat il ne mm. pourrait pas passer au premier tour. parce que situation Sénégal nu mu mel. Mm. ñoom kontaanuñu ci régime mu APR beeg Benno Bokk Yaakaar parce que ils sont déçus. gis nañ ko jeunes yaa ngi jël gaal par milliers hier rek euh, on parlait de cent quatre vingt gaal boo xam ne deux cent quatre vingt ñoo ci nekkoon pour dem. waaw effectivement képp koo xam ne dépose dina recours quand mm-hmm. euh, dina am yaakaar. parce que sinon coono boobu yëpp yaakaar naa ne avocat yi bind requête bi ñëw présenté wu audience plaide dossier du leen ci fekk. voilà donc euh, am nañ ci yaakaar dans la mesure où euh, décision refus boobu nga xam ne bañ bu ñu bañal euh, jox fiche euh, ah parrainage yi. yaakaar naa ni teguñu ko fenn lu dul par parloo ak jaay doole. donc euh, direction générale des élections du conseil constitutionnel du moom moo war a saytu candidature yi te yaakaar naa ni ñaari téeméeru sénégalais yi euh, nga xam ne retiré nañu fiche euh, collecte parrainage. ca direction générale des élections est-ce que ñooñu laaj nañ leen seen carte électeur wala vérifier nañu ndax ñoo ngi ci liste électoral yi yaakaar naa ni vérification boobu amul donc dama xamul lu tax ñu singali le candidat Ousmane Sonko bëgg ay vérifier lu ndax moo ngi ci liste électorale yi wala newul ci liste électorale yi parce que fu ñu toll nii euh, on parle de candidat à la candidature donc tolluguñu ci étape vérification ak validité candidature conseil constitutionnel yi donc ñoom lu ñu nanguloon en 2018